ay garab ngir xeex jàngoro bi di sibiru waaye tamit ay maladie chronique ak yeneen li ñu mel buñ ko xayma tollu na ci 1 million 500 mille francs CFA mu doon dimbal bu bàyyee ko ca armee bu Sénégal jëmale ko ci askan bu yeewoo ca Mbisine yooyu le garab dina tax ñu daal di équipé waat poste de santé bu Diagnon foofu nag ñu dëkkee ca Mbisine di ko fréquenté bu baax. ci cérémonie bi. ba la xoolee depuis Yagna, na ñu ngi def tout pour que population Mbissine yeeg ñu nekk Sengeer rek nekk ñaaju ñëpp ñibbi seen suñu njëkkoon alhamdulilah ñu ngi ñëw nànk nank ñu leen sécurité nànk-nànk mais ci kaw sécurité bi dama ay besoin ñu soxla lu ñu soxla le commandement bi nag muy Semga dafa sensible un peu sur ces besoins là moo tax balaa muy tëdd di de la laajte lan le gars yi soxla gars yi ne ko ah instant bi hivernage de dañoo soxla lii ak lii mu ne ah du ma xaar kenn ci loolu mu mu ñëw def lu baax def lu baax ni xaar mënti na ay doomu médicament yoo ni moom lañu soxla réellement

armée de bokk ci mission comme accompagner la population dans la satisfaction de ses besoins vitaux les besoins socio-économiques budé defar la de bu également ay école la bu ay poste santé ci misaal sax poste santé bi bañ koy défar militaire dañ dugal sen loxo ndax bokk na ci ñi tax poste santé bi am. bi bile cérémonie de don de médicaments bokk na ci activité civilo-militaire des armées ngir ñu gunge askan bi nga xamante ne dañoo dawoon seeni gox-goxaan l'armée bi tek na ci kaw table bi enveloppe bu def cent millions ci suñu copar